parce que ba jamono bii ñu toll nii ci discours am dégg ngeen mu wax annoncé li ñu war a voter à l'Assemblée nationale <laughs> ci ci mbiru mbiru Karim Wade ak mbirum xalifa Sall mais ñeneen ñi aussi depuis jàngat yu bëri gis ne observateur yu bëri nee nañu Macky du bokk mais dinañu yóbbaale Ousmane Sonko aussi du bokk euh, Père la euh, kan mooy bokk ci élection 2024 yi. bala maa ñëw ci loolu. Mhm. Fall mi dana am lu ma ko tontu. Mhm. dafa wax ni Macky Sall. pression amu ci il n'a pas humilié humilié les. le élus locaux les les élus. les hmm. élus. mais gis nañ fi benn waay ki nekk directeur de l'AIBD. Hmm. def fi. initier fi benn pétition mhm. deux millions de personnes mhm. Mhm. yoo xam ne yii dañuy def pétition comme quoi nous Sénégalais ou militant de Benno ou autre nous souhaitons que Macky Sall soit une candid soit candidat pour la troisième fois Macky Sall bàyyi leen ci encourager leen ci le sumun mooy les élus yooyu cinq cent ou bien quatre cent et quelques bi ñu leen indee ñu ne voilà les élus ça représente plus que ça plus que les un million et cetera parce que c'est des élus éparpillés par le, euh, Sénégal donc leur poids électoral c'est plus d'un million d'électeurs ñii aussi ils sont venus pour réclamer au président euh, pour wax ne président Macky Sall da ngaa war a defaat candidat Macky Sall nangu ko mhm. ñu ku ci nekk wax ba géex jooy def lu ne Macky Sall le lendemain à la même heure mu jël micro bi ne du ma nekk candidat ça c'est pas une humiliation mm. mais toroxal la dele na a toroxal il les prend pour des moins que rien c'est ça la réalité. ok léegi nag li fi nekk. Hmm. ñoom Macky Sall da doon baliser pour boppam en éliminant Sonko. Hmm. léegi nag il a posé un acte le premier qui qui comment il encore euh, la première manche que nous avons gagnée du bokk. Hmm. léegi nag moom na wut candidat am indi ko ñu itam. sunu candidat yi nekk Yewwi te bëgg a nekk candidat et dont le leader est Sonko et la figure de proue ñu sacrifier ko par des artifices juridiques kii na tiennent pas artifices yooyu na ko Macky Sall teg hmm. et c'est ça notre dans le futur pas dans le futur lointain mais dans le futur proche notre combat mooy mu génnee les détenus politiques Sonko day bokk texte yi nañ ko réviser Doudou Ndoye wan na leen yoon wi mm-hmm. fan ngeen di jaar mm-hmm. quand même Doudou nee na leen bu ngeen bëggee sonk bokk nii ngeen di def mais est que ci adresse bi euh, junjul loolu parce que ci adresse bi njiitu réew mi am na lu mu wax ci par rapport par rapport sa main est toujours tendue non non wax ma loolu par rapport ak décision de justice yi waaw décision de justice yi dina veille pour ñu mën ko pour ñu appliquer ko kooku ñu bëri euh, diñ ci sous-entendre ci dossier Ousmane Sonko bi ci la bokk est-ce que le problème c'est pas c'est pas la participation aussi de Sonko ci élection yi. gis nga avec Macky mhm. kii dañ ne Macky Sall est sorti par la grande porte Macky Sall n'est pas encore sorti de. ah bon il a fait semblant. il a posé un pied d'or mais ba tey na laa ngi fi s'il veut empêcher Sonko. de sortir mhm. il n'est pas encore sorti par la grande porte le fait d'empêcher Sonko de participer aux élections ku ne xam ne ne dana am ay conséquences mhm. du ñu ko nangu leer décision de justice bu ma dugal ci gaam boobu waaye décision <laughs> du ma ci quoi ah, mais c'est un dossier judiciaire quand même ak lu ñu mën wax waaye c'est une décision judiciaire waaw duut ndooy nee na leen dindi leen ko mhm. wan leen yoon wi ñu koy dindee yoon woo xam ne dinañ ko dindi te ils ne perdront pas la face nañ ci jaar boo bëggee jàmm cim réew la majorité du peuple bëgg ngay def boo bëggee jàmm cim réew la majorité du peuple lañ bëgg ngay def la majorité du peuple Sonko ko yor yor xale yi bi mu yoree loolu yor xale yi boo ko bëggee empêcher mu def élection da tu les jeunes en face de toi. même malgré Sonko. ok waaw loolu laa la bëgg xamal te ñoom. dama defe ni ils réfléchissent pas en France est-ce que force occulte moo fa ne. Mm-hmm. loolu bëgg a xam. Mm-hmm. mais man bi ma gisee ku xam France boulevard euh, kii euh, euh, Montparnasse. Mm-hmm. nga xam ne mat na cinq kilomètres. mais gos yi lépp lañ bousillé dem à la rue de Rivoli yow mi artiste rue de Rivoli foofu la ministère des finance France nekkoon temps wu Giscard d'Estaing mooy à côté de Trocadéro fii kii bi nekk les grands magasins sont là-bas mais gos yi euh, saccagé ko. Ah, absolument c'était plus sauvage. les les jaunes en France est-ce que ñooñu. ay forces occultes ay forces occultes mais force occultes yi n'existent que dans leur imagination nañ ñu génne ci camp boobu. Mhm. force occulte amu fi ay sénégalais yu mer bëgg a jot. seen mhm. bopp ñoo fi ne leneen néew fi. Mhm. loolu nag. li ñuy wax qui veut son sein l'accuse de rage <laughs> gannaaw bëgg na ñoo déployer des forces militaires yi demoon il y a trois ans quatre ans ñu rappeler leen bu ñu leen rappeler pour garder nos frontières mhm. c'est une très bonne chose parce que y a des menaces encore dans nos frontières yoo xam ne yi dinaa la relancer sama question waaw parce que ñu ngi jëm ci euh, loi pour amnistier Khalifa Sall. amnistie wala amnistie. amnistie Khalifa Sall révision du procès ouais, Karim Karim Wade. Wow. mais aussi il y a le cas Ousmane Sonko. Ouais. qui est toujours barricadé ci buntu këram euh, à la à la cité Keur léegi nag est-ce que du beneen combat bu beneen beneen combat bu taxawaat. gis nga ba tey rek mu ci kii la la libération de Sonko pour mu participer ba élection xam nga nit boo ko barricadé këram du génn këram du dem fenn. ñi ngi naan sax maajoor dégg naa defe naa moo ko wax. Mhm. ñi ngi préparé pour jàpp. pour jàpp absolument donc ñoom ba tey bëgguñu jàmm. bëgguñu jàmm Macky Sall bu bëggee sortir par la grande porte na apaiser réew mi. Mhm. lii mu bëgg a def lu luñ ko nangu. te ñoom jusqu'à preuve du contraire dans Benno Bokk Yaakaar. Mhm. je ne dis pas Benno sax mais dans l'APR parce que le candidat de Benno Bokk Yaakaar fa va sortir des rangs de de de l'APR foofu lañ koy jëlee. AFP dana ko nangu Alioune Sarr est là waa PS est-ce que dinañ ko nangu ak ñeneen nag nangu ñi ci des. Mhm. est-ce que ko nangu ñoom amaguñ candidat amaguñ candidat ils sont dans une débandade mhm. extraordinaire. mais nag jamono jamono ji kenn xamul kan mooy candidat aussi ah. kan kenn xamul kan mooy candidat. Sénégal waaw les autres qui qui c'est. Mali kii Mali Gakou. déedéet wax Mali Gakou kii Déthié Fall s'est déclaré. Ah, Abdourahmane Diouf micro bi Abdourahmane Diouf s'est mhm. déclaré candidat. Mm, wax ci micro bi. Mhm. Tanor euh, xaw ma Sonko a dit qu'il est candidat ñun dans l'opposition on connaît nos candidats. Mhm. ñoom ñoo amagul candidat xamuñ seen candidat. defe nga ne euh, euh, ce manquement de Benno Bokk Yaakaar danañ nanguwaat encore nekk dans kii sous la coupe de Macky mu leen di choisir candidat bu ko defee nag ñoom ñu décap complètement dañ ko nangu. <laughs> jërëjëf gis nga ñii mm-hmm. bala ñoo dem taal réew mi lañ bëgg. subhanallah déet déet waay. billaahi bu leen Macky Sall dégloo. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ taal réew mi soo ko def. nañu kaw sonk bi dañ ko étudier Sonko nekk candidat gars yi ñu jàpp les détenus politiques. ñu génne leen immédiatement. ndax defuñu dara dañ lay jàpp ba noppi teg fiche bi. kuñ ci jàpp de moom ko wax. ma gis la moom. teg fiche bi di seet ban case lañ lay crocheté ok lan mhm. nga def ak loolu def mhm. yaayu di caaxaan yooyu nañ ci génn je parle à mon ami là pour le rassurer mhm. kii bi ñu koy jàpp booba étudiant pes la boo xooloon doole ji pes am Sénégal a fait énormément de progrès de 60 à maintenant nous avons fait des bon qualitatif et quantitatif en matière de démocratie moo wax la ko. ok merci doyen merci. ah gis nga euh, lii. et la population. jërëjëf doy combien d'analphabètes on nous en avons le taux d'analphabète encore très fort. Okay. Mm. donc fii ñu toll rek lañ mën a toll bu ko xeeba. Ah. merci merci da ngay comparer merci ma ñëw ci euh, Abdou Aziz li ma wóor les acquis démocratiques léegi lu ñu xëy am comme acquis. Mm-hmm. dañ ciy boof kenn du ko changé. dinaa dëkkaat ci waaw ma ñëw ci Abdou Aziz euh, Abdou Aziz euh, finalement Macky ne sera pas candidat mais qui sera candidat parce que. ñu ngi jëm ci assemblée di voter loi boo xamante ne pour am amnistier Khalifa Sall révision procès Karim Wade Ousmane Sonko toujours këram ñu barricadé qui kii candidat. merci Mass. Mm yaa ci wolof nag ah, nga baal ma. Ah. d'accord mhm. dama am loo nga xam ne il faut ma leeral ko aussi.